من يفك بين دير السواد دي فوحت عني فجر دي والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما ابدا الحمد لله كثيرا الحمد لله على كل حال من يجي سد يالله سد بامود ابا مود واد جلسي انت صلى الله عليه وسلم اكو كرام يك صحابه اكيبو كام ياغي تفسنا بيوم القيامه ديان يالله ني يالله بوليس ني يالله ني هجاما اندكو فنانوكو يالله مي جامل يالله يالله يالله يالله جامل يوكني سوتو يوكني كاتن يوكني وير ñi feebar nekk ci kër gi nekk ci lopitaan bi waaye fu waaye nekk di jàmbat yàlla mi saafara yàlla mi may wér yàlla ñu yàlla boole may afiya yàlla ñu yàlla may afiya yàlla ñu may afiya may ko mboolem doomi adama ci kaw suuf waaye jullit yi jiitu àllaaxira yàlla yërëm leen yàlla yàttal seen baamel yàlla def seen baamel mu nekk rawdatu min riyaad janna yàlla dana leen jannatu daws ma alladi anama allahu alayhim min annabiyina والصديقين والشهداء والصالحين سنة أولئك رفيقا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين نضوي على سامر آرد الله اللي فيها إبرة سيرة الصراط المستقيم مجلس فتنة مصيبة بلا شيطان ورسقال لين هم ورسقال لين لغي ورسقال لين على نور يباه جيجني على سامر لين على آرلين آرم بولم دمي آرم سكوسوف آمين بكو جنيا في سداري محمد صلى الله عليه وسلم jàngalekatuma boobu ba في yàlla يا الله سبحانه وتعالى دينيو نياح si ay jëf yu baax yoo xam ne profit bu rëy a rëy moo ci nekk xéewal yu rëy rëy moo ci nekk pour ne yàlla subhanahu wa taala def ñuy ubbi bunti yërmande waaye jaarloo ñu si bunta boobu nga xam ne suñ si jaaree rek mu nekk suñ texe àdduna ak alaxira si lan si ay jëfin yu baax yàlla subhanahu wa taala di waxaat ak ñi nga xam ne dañ gëm yàlla yàlla ne inna alladina qaalu rabbuna allah waaw nit ki da ngay gëm yàlla ba gom-gom bu wér ne ah yàlla de mooy suma borom waaw aw ma kenn ku ma suma borom ku dul yàlla subhaanahu wa taala nga wax ko gom ko jëfee ko waaw ko gom ko jëfee ko nga ne nag waaye nag gannaaw bi nga yow jëlee agreement mi woo ne yow d'accord nga ne yàlla muy sa borom mu ne lan moo la war summa staqaamu ah Ya bi nga xam ne mola sa borom moo la moom moo la saaka moo lay war sagal waaw mu ne summa staqaamu nga ne nga dal di jub waaw mu ne istiqaama na suñ ko waxee mooy ki tegu si yoonu siraatul mustaqim mooy ki nga xam ne mu ngi si li yàlla santaane mooy ki nga xam ne ngi bàyyi tere subhanahu wa taala di julli julli waxtu julli or weeri koor su ko yàlla may alal mu dem aji maaka joxe asaka nekk si li nga xam ne jokkale mbokka dimbalante ak waaye ne doole yi waaye nag di ci oote tamit di si diggal nit ñi waaw te fekk la moo digle tamit moom mu ngi si kaw mu ngi jub mu ne suma taqaamu yàlla nag mu ne ñooñu yàlla duma duma leen bàyyi neen mu ne tatanazzalu alayhim almalaika an laa taxaafu mu ne ñooñu bu ñoo dem ba war a génn àdduna malaaka ñoo ñëw di wax ak ñoom ne bu leen am tiitaange bu leen am ragal parce que liggéey nga liggéey nga fi yéen a ko fi liggéey si àdduna liggéey nga liggéey ngeen loo xam ne tax na malaaka yi ñëw di leen dalloo di leen wax ne bu leen am jaaxle te bu leen ragal mu ne laa taxaafu bu leen ragal wala taxzanu te bu leen am ay naxar bu abshiru waaye nag ñu ngi leen ay kontaan loo ñu ngi leen ay bégloo bil janna allahu akbar ndekete kii def lu baax ki gom ne yàlla mooy boromam mu sax si lu baax loolu balaa moo génn àdduna malaaka yi nañ ñëw dalal xelam won ko ne bul am jaaxle fi ngay dem te bul am ragal waaw waaye nag liggéey nga liggéey boo xamee ne rek ñu ngi lay promise ne waaye ñu ngi lay digne ne digal eh, dig ne arjana mooy sa place wa abshiru bil janna allati kuntum tuadun yàlla ne gis arjana mala doon dig ba nga àdduna si kaw soo jëfee lu baax ma fee la arjana yàlla nag aha kañ balaa nga génn yi nañ ñëw wax yow wan la ne aha lañ la digoon préparé nañ ne ko si àllaaxira yàlla ne nahnu awliyaaukum fil xayaati dunia wa fil te ku yàlla nekk sa waliyu maanaam yàlla nekk sa si àdduna ak àllaaxira yow mucca nga am te muy li nga xam ne mooy mujj bu rafet te mu lu lu lu dora lu lu jara ñaan a ngi nii mooy mujj bu rafet te yàlla ñu ko yàlla may te yàlla macha allah di ma ne xitaamuhu misk waaw walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun nuzulan min ghafur rahim waaye fa ngeen ñaan ci mu arjana boobu lakum fiha ma tashtahi anfusukum loo nama rek lu sa bakkan bugga rek ñu ne axakay mu ngi nii amul coono tey àdduna loo bugga rek di nga yëngatu pour nga am ko waaw xataa sax bu dee millionnaire nga sax balaa nga lekk sax di am pour jóg dem ñu defaral la nga toog di waaye arjana yëpp dañ ko préparé la mu ngi nii loo xelaat moo bugg sa xel rek lu dugg sa xel rek nga ne lii laa rek mu ñëw sa kanam loolu na rek ñu ne mu ngi nii subhanallah yéen sa mu ne foofu nag amut taayi amut stress amut soono amut màgget amut feebar moo tax mu ne nag yàlla subhaana taala mu ne wala kum fiha ma tashtahi anfusakum wala kum fiha ma taddaun loo commande rek mu ñëw waaw loo bugga xam nga àdduna ndeysaan xataa sax mun ngaa nekk millionnaire am na loo xam ne yaa ngi ko bugga mun loo ko am nga gis ko xam ne am na lu lu jeex si alal waaye am na lu mu bëgg a lekk sax mënu koo lekk ndig aaye nañ ko ko ndig lan feebar àllaaxira nag arjana ak loolu amu fa ne kii de diw bi de ah nañ ko lekk lii aaye te am nag njëgam mun naa jënd lu ëpp waaye nag bëgg na ko mënu koo lekk parce que ñu ne baaxul si wérgu yaramam du ko laal yàlla nag arjana loolu amu fa dafa am daal lépp loo xam ne nama nga ko rek waaye tamit loo commande tamit ñu indi la ko loo bëgg rek nga commande ko rek ñu indi ko waaye nag fu foofu mooy daluwaay bi nga xam ne nuzulan min xafur rahim mooy daluwaay bi nga xam ne aji jégalekat bi aji yërmaane bi yàlla subhanahu wa taala falay dalal ñi nga xam ne ñooy jullit yi bon foofu jar naa liggéeyal mbokk jullit yi bon lii yëpp li ibnu Qayyim rek mu ne li gën a si doomi aadama bi nga xam ne man de yoon bi su ma si jaaree ma texee àdduna àllaaxira nga jox ko gannaaw jël yoon boo xam ne toroxaange la laa indi la ne yàlla subhaana waxtu bu nekk rek mu ñoo ñaax pour ñu tegu si yoon bi nga xam ne mooy yoon bi ñoo texeeloo àdduna àllaaxira nga xam ne fa la ñëpp di dem nga xam ne fa la ñëpp di mujjee muy yàlla subhaana taala di ma ne foofu ne xaalidina fiha abada dunda la ba faw àdduna bi moom dara fi mbokk jullit jaar-jaar la rek waaye jaar boobu tamit yàlla subhanahu wa taala woon na la fi ngay jaar waaw nga jaar si jaar-jaar boobu nga xam ne dem fekk ko fi nga xam ne mooy àllaaxira muy jëf yu bàyyi nga xam ne boo demee yàlla nee na bi bii laa la dencal rek lii laa la lii laa la àdduna nee soo defee lii àllaaxira lii laa lay defar muy xéewal yooyu nga xam ne walakum fiha ma tashtahi anfusukum lu sa bakkan nama rek lu sa bakkan bugg rek ñu ne mu ne la mu ngi nii tey ku nekk si ñun àdduna fii ku nekk am na loo bugg te tey mu ngi jafe pour nga am ko am na yu bari bari bari ndeysaan mu ngi sa mébét te mu ngi jafe nga am ko doo ko mun a am sa léegi-léegi sax di nga dem ba génn duna ba génn àdduna doo ko am waaye arjana nag amul lu la fay jomba loo bugg rek yàlla mun ne ah kay mu ngi nii bon yàlla ñu yàlla boole si ñi nga xam ne nañ dugg arjana mm. yàlla subhanahu wa lam dige si jullit yi sa arjana yàlla nañ bokk si ñu koy am ak képp ko wax amin allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi alaxirati hasana wa qina azaba annar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin